abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su et ngeen di am ay xibaar. daleen ak jàmm seen seen bii di FTTV Sénégal waa ONU ci baatu ki ñu dippee di porte-parole di bureau des droits de l'homme Yokotina na ab kàddu daal di koy jëmale ci lu président Macky Sall jëlee ndogal ne day annuler élection présidentielle 2024 ci au Sénégal. si li ni kii di Liz Trussell ne ginnaaw ba jotee rapport bu koy wax waxtaanee ci réewu Sénégal dañoo dog foofee internet bi que ci réewu Sénégal dañuy aaye foofee manifestation que ne si réewu Sénégal liberté d'expression et d'opinion dañ ko faa salfaañee que ne si réewu Sénégal mbir assemblée nationale la ay gendarme daal di fekk foofee député opposition bi daal di leen di génnee par la force. si ginnaaw loolee ñuy soog a adopté projet de loi boobee kii di président Macky Sall introduiroon biir assemblée nationale mais ba mu gisee rapport boobee njàqarek tiis la am daal di koy jëmale ci démocratie sénégalaise bi nga xam ne ne ay attaques at la sénégalais yi xeex bam ñong ba dëgër bañ dippee sax réewu Sénégal la vitrine de la démocratie de l'Afrique de l'Ouest kii di Lise Throusseau daal di woyal ne ci biir rapport boobee tamit ba mu gisee argument wu président Macky Sall yu sabab mu daal di jël ndogal ne daa annulé élection ci réew mi di Sénégal ne ba mu gisee argument yu légère yooyee dafa sax daal di tiit ndax ne kii di président Macky sàll en tant que homme politique moo gën a xam que ne report ay élection loolee la majeure partie day am conséquence yu néfaste yu siy daal di topp donc ne kii président Macky Sall ba muy jël ndogal di dàq élection ci réewu Sénégal da ko waroon a daal di appuyer fu dëgër waaye tamit ne ki président Macky Sall bépp conséquence bu mën a am ci report boobee moom mooy principal responsable bi. kii di liste Roussel daal di wéyal ne ci baatam waa ONU ñoo ngi wax kii di président Macky Sall mu daal di respecter date électorale ci réewu Sénégal te mu daal di amal élection yi le 25 février 2024 bi ñu jëm. abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am ay xibaar.